mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax ci sunu people TV di dikkaate ak yéen ci li gën a fës ci xibaar bi ci gën a fës nag mooy ki nga xamante ne moom moo di boobu boobule di njiital 7TV di Maimouna Ndour Faye xam ngeen ne ci euh, semaine bi la ko daal di woon agressé foofu nga xamante ne moom moo di foofu ca buntu këram gannaaw bi nag booba léegi coow li mu ngi bëri lool ku ci nekk di ci yey di ci yàbbi ñu naan euh, nii la demee la demee ñi ñoo ko agressé kii moo ko agressé wala bokk ñu ngi sax am njort ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa ex Pastef ñoom dañoo bokk ci loolu le waaye itam ki nga xamante ne moom moo di Clédor Sène moom tamit génn na bërki démb ci benn chaîne de télévision YouTube muy moom tam di xamal ne ki nga xamante ne moom moo di Maud Awa Ndiaye dafa mel nii bi muy wax ci li nga xamante ne moo dal ma Ndour Faye daf ko ci xaw a laaxaale indirectement moom nag mu daal di koy euh, métitlu ba tax na sax moom nee na dina daal di jug ci loolu daal di ci def li nga xamante ne moom moo ci war waaye tey bi nga xamante ne xëy nañu gis nañu ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Senweb ñoom nag daal dinañ indi benn xibaar jëmale ko ci ki nga xamante ne moom moo di euh, Maimouna Ndour Faye nee nañ nag gannaaw bi nga xamante ne euh, agressé nañ ko daal di ko yóbbu fi nga xamante ne moom moo di hôpitalu Wakaam ba waaye nag ci jamono ji ñuy wax ak yéen kii lee di Maimouna Ndour Faye daal dinay ñibbi kër këram foofu nga xamante ne fa la dëkk muy ca cité El Hadji Malick Sy nekk foofu ca Mamel extension nee na nag depuis di ci guddi la daal di dellu këram waaye bi nga xamante ne dellu na ñoom nag nee nañu jamono yi ñuy wax ak yéen kii di Mamadou Ndour Faye mu ngi ci jàmm ak salaam waaye nag dafa am loo xamante ne l'enquête bi daal ne koy génne gannaaw bi nga xamante ne journal bii di Source A ñoom ñoo ñu ko xamal nee nañu ki nga xamante ne moom moo di Mamadou Ndour Faye gannaaw ba ñu koy maanaam démb ci mardi am na élément yoo xamante ne ñoo jugee ca section de recherche daal di koy fekk këram daal di waxtaan ak moom ci li leen nga xamante ne moom moo jëm ci mbirum agression bekk dossier bi fi nga xamante ne fa la moom nag ki nga xamante ne moom moo di Mamadou Ndour Faye moom nag lam leen xamal dafa ñëwaat ci li nga xamante ne moo ko dal maanaam ñëwaat ci film l'agression bi moom nag nee li nga xamante ne moom lañu ko def du ko jiñ kenn du wax ne diw wala wala na waaye nee jàpp na ne du agression simple nee na nag li nga xamante ne mooy indi agression bi nee na am na leneen loo xamante ne rax na ci gannaaw bi nga xamante ne dégg na ñenn ci waa quartier bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo bu quartier bi daal di xamal nit ñi ne insécurité moo am ci cité boobu waaye moom nag nee na li nga xamante ne moo ko dal tegu ko ci insécurité dafa jàpp ne am na leneen loo xamante ne moom moo ci rax waaye tamit nee na jàpp na ni ba fu muy mujjee daal moom lii nga xamante ne moo ko dal tentative d'assassinat la boo xamante ne lu ay euh, Samba Boy waajaloon la bëggoon ko jëmee ci kawam loolu nag mooy xibaar bi nga xamante ne moom lañu fi am tey ci ci mercredi bi loolu nag lañu leen doon jëtal ci sunu people TV di leen ñaan rek ngeen woy di abonné lépp loo xamante ne abaat na ci xibaar jëm ci mbirum Maimouna Ndour Faye daañu ci dikkaat ak yéen woy leen di abonné ci sunu people TV jëre ngeen jëf